def festival international aussi tamit nga def ci sa appui vraiment ma ci au nom de la compagnie bëgg sa réew mu ngi lay remercier parce que boobu ba léegi mënuñu am chance toog ak yow remercier la ci yow. Euh, léegi au fait man li may wax rek ci euh, festival bi na peut-être am na luñ ci jotoon a waxtaan muy euh, man dama gisoon festival bi mu nekk lu transversal man côté boobu laa doon waxee jot nañ ci waxtaan parce que dama ne géejawaay du musique rek moo fi nekk comme culture. côté bobu la doon waxee parce que euh, je me rappelle Arouna Babé amna na fu mu laaf muy daana fi am euh, man bima ma jot muy Bokar Sadikh Kane bi mu nekkee maire jot na fi def dans tous les euh, communes yi nga xamanteni ñoo ne ci Guédiawaye muy 5 communes day am plateau plateau yi muy am day am musique am théâtre am peintre am lépp pour compagnie yi mën ci bénéficier parce que tamit bu ñu waxee festival international de Guédiawaye culture musique ethnique xam nga euh, am yeneen domaine yu fi nekk ñu nekk ay jeunes te duñ ci participer peut-être mën nañ ci sax découragé ne ñun faale wu ñu ñun mun nañ comprendre parce que ñun ay participer ci ak ban participer la ñu parce que ñu ngi participer au niveau international ci yeneen festival mais dafa am ay xale yu topp suñu ginnaaw ñoo xamante ni bu ñu sañoon lépp loo xam ni mairie mu koy def ci wàllu culture ñoom dañ ci participer te man côté boobu laa doon waxee may wax ni loolu lu am solo la xëy na peut-être euh, li nga wax mooy di nga di nga recevoir acteurs culturels yi euh, mois de juillet mais euh, xëy na peut-être lépp xajuñu ci mais li may laajte rek mooy ba xam festival bi am na directeur du festival koo xam ne mooy directeur du festival parce que man bu ma gisee maire toog di wax pour man moom mooy directeur festival non sérieux beneen bi aussi mooy ba commission yëpp dañ koo tëral ne lii mooy commission nangam lii mooy commission parce que festival na ñun dañ daan dañuy dem ci ay festival yu mag xam nañ festival ni ñu koy organiser dañoo xam te dëgg festival il faut commission yi bari il faut commission yu bari parce que kenn wala ñaar wala ñett rek ñoo def lepp il faut mu am ay régisseur de plateau lepp ay direction artistique lepp ñu xam ni lii la. beneen bi mooy euh, maire dama fi am festival muy festival international de théâtre de Guédiawaye bien vrai que ni def nga appui mais euh, bu ma sañoon nii nga koy jëlee comme nii non sérieux parce que dama festival international de théâtre de Guédiawaye kon man moomatuma ko sama compagnie moomatu ko xëy na nag sant nañ yàlla ba première édition jàll na. ñu am budget 28 millions yàlla dogal ñu indi fi trois pays yu représenté ñëw fii Sénégal rawatina dëkk Géejawaay ñëw def fi ay plateau ñoom ñu joué Géejawaay kon euh, li lay ñaan rek mooy yàlla na la yàlla may beneen mandat mais boo fi nekkee édition yi ci topp nga fexe see ànd ak ñun te nga xam ni ni mun bii ni mu nekkee festival international musique ñun moom lañ créé mu nekk festival international de théâtre waaw loolu laa amoon lu may wax suñu projet Wallonie bi nag le jour yooyu ñu wax ci waaw parce que dama am partenaire bu bu nekk Wallonie ñu koy wax Roméo xëy na peut yow jot ngaa waxtaan ak le maire euh, moom li mu bëgg mooy euh, ñëw fii parce que daaw indiloon na ma benn somme conteneur cinq millions ci ay beeke ay chaise roulante ak ay fontaine ci jàkk yi Pape Samba xam na ci dara parce que yaa informé loolu suñu neexoon ñu jaay ko mais duñ ko def parce que ay homme culturel la en plus li ñuy am doy nañu mais dañ ko jël séddale ko ay doomu aadama ñi nga xam ne soxla nañu ren mu bëgg a ñëw fii def benn euh, formation ci cinématographe jotoon nga cee waxtaan ak maire wala nii ba ma envoyé le message loolu lenn rek maire moom moo ñu kale mooy yow nga bind lettre signé ko mu wan ni maire bi ànd na ci maire wala ni financé lépp kooku ñëw appui ñëw def Euh, formation yi parce que jeunes yi nekk fii soxla nañ ko ci cinématographe te comme que sama partenaire la sama xarit la damay dugalaale loolu rek ba juillet ñu doog a yeggale nga baal jërëjëf